Vous et on et on appelle non attends enjeu l'unité de Benno Bokk Yaakaar nous y travaillons matin midi soir. mais vous travaillez pour. non attends il faut que. Euh, Souleymane Diop génn naan le candidat ne rassure pas Bibi Baldé génn naan euh, nous ne pas rassurés par notre par notre candidat. xam nga ban lecture lañ ci am. non xam nga non déglu ko rek man je ne minimise personne. je ne minimise personne mais defe naa tey fi ñu toll di liggéey benn Bokk Yaakaar ay déclaration ñi nga xam ne nekkuñu sax ci réew mi dégguñu leen bu yàgg benn mu politique ñu ñu yeewee def effet de manche c'est normal ci politique la ci positionnement la dinañ wax ak ñoom dellu si mais depuis boobu léegi génn na waxaat bañ ko waawee expliqué ko que peut-être ci ñu la bokk ñu wax ak moom dellu si na normal ñu ko expliquer ko mu comprendre loolu démarche la ñu ngi ci parenage am na ñuy parrainé di déposer ay listes yu bari am na ñeneen ñu nga xam ne dañuy dem ci journal bi wax yuuxu pour ñu bàyyi leen parce que peut-être mënuñu parrainé mais ñiy parrainé waxuñu après peut-être bu ñu demee bu ñooñu ba ñu waxee ba léegi ñu ngi dem nañu waxtaan ak ñoom peut-être loolu la ñu bëggoon. ah démarche politique la. non ay démarche politique la personnelle yu ma accepté wul. mais nag bu ñu décision bu toll nii ñu def ko jël ko ne kii moom la ñu jëpp nañ ñëpp am mu amoon ay candidature nangul leen ñu dina am quelques remous mais yow sa bopp xam nga ne mu ngi calmé wu parce que y a un travail fort bi nekk te ñoom ñëpp xam nañ ne ci Benno Bokk Yaakaar lañ nekk ci seen victoire bu ñu am victoire mu bokk ci mooy bu Benno victoire Benno Bokk Yaakaar gañoo mooy candidat Amadou Ba bu gañee te Amadou Amadou Ba xam nañ ne bu ci yàlla àndee am na tout remplit les conditions pour gagner te dañuy gagner tey tey ni mu bindoo Sénégal ku ko gis xam nañ ne candidat yi fi nekk yëpp moo leen féete kaw largement donc loolu tamit bu ko wàññi man foofu ci fànn boobu damaa defe nañ ñun ñu ngi liggéey il faut rappeler les gens ñu xam ne ne ñoo bokk camp contradiction bi ñu am mooy faire élire Amadou Ba c'est la contradiction principale yi des yëpp positionné wut loolu dafa am ci parti surtout parti au pouvoir. Podor nag. mais non capacité bi ngeen nekk à l'unisson derrière Amadou Ba. on est déjà à l'unisson derrière Amadou Ba. comment ça. ku ci nekk no Podor ni mu bindoo. Hmm. gisaguma leader bu fa taxaw wax ne àndul ak Amadou Ba da nga ko faa gis yow te xam naa ko xam Podor nga. bu baax waaw donc non parce que su da ñuy jàppale ci lu bari li ñuy def. non jàppale ma leen damay retransmettre damay liggéey mooy bi rek déedéet du liggéey du retransmettre damay damay liggéey damay liggéey yéen nag yéen a gën a baax yéen a politique yi à Dakar ndax yéen di ngeen jël direct nayu leen <laughs> non non bàyyil bàyyil wax jooju c'est que ku nekk ak sa façon la ak impact bu mu am ñun si ñun impact bu mu am si ñun mun naa am yéen daal bu activité amee man damay kontaan. dañ leen may mun a defal ñu may mun a si. Ah. ngeen uteeg ñi ma xam. waaw da ngaa liggéey rek boo liggéey woon duñ la def léegi ñu dellu si ci affaire bi. waaw tey vraiment dynamique yi am ci Benno Bokk Yaakaar. mais Podor vous êtes sûr que vous êtes tous à l'unisson bu fekkee yow xam nga nee xam nga Podor bu baax. bu fekkee ah. dafa am information boo mu bëgg a jox. je suis non damay laaj rek. non moi je te li ah. ma jàpp. ñu ngi parrainé unis derrière le candidat ñu ngi parrainé hmm. euh, tey euh, expérience bi ñu am ci parrainage mooy dans le département de poro résultat yi ñu am ci parrainage pratiquement moom la ñuy am ci élection li ñu déposé gum am nañu objectif ci parti bi objectif daam Benno Bokk Yaakaar ñu am électeurs yooyu tey li ñu am ci parrainage ak affaire mat na ko yi ñu déposé ak yi nar yëpp mot na objectif yi ñu amoon te lexpérience expérience amote objectif bu ñu am ci parrainage bu ñu ko atteindre élection objectif boobu dañ koy atteindre